jeudi ni ñu koy faral di defee waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum politique Alioune Guèye pour loolu ma bàyyi la nga dalal gan bés bi. effectivement Fatou Sidibé tey jii la ñuy dalal euh, Ibrahima fay di euh, étudiant nekk jeune responsable APR Alliance pour la République di parti nguur gi Ibrahima ñu lay nuyu di la wax euh, dal ak jàmm suñu plateau. maa di nuyu bu baax donc di nuyu waa suñu suñu gars. Label Label TV <laughs> ok vous m'excusez di nuyu waa suñu Label TV donc di leen di jaajëfal aussi ci invitation bi. di nuyu sama mbokk de la JRFM jeunesse république jeunesse républicaine fidèle à nuyu aussi euh, ñëpp ñi dëkk ci arrondissement Fimela donc di nuyu waa maire national le mouvement des élèves et étudiants républicains coordonné par Abdoulaye Diagne. Hmm. donc di nuyu képp koo xamante ne aussi responsable politique nga. nekk ci APR wala nekk ci beneen mouvance bi di nuyu aussi euh, sama mbokku étudiants yi. très bien di leen di masawu aussi coono ak. voilà euh, xew-xew euh, li fi jot a xew biir université. ci loolu sax lañuy tàmbalee UCAD googu ak saccage yi fa amoon ci manifestation yu mujj yu nga xamante amoon na ci réew mi. recteur jël jël ndogal ni cours yi dinañ reprendre en ligne tey jii ci euh, jeudi bi mhm. yenn étudiants yi nga xamante ni ñooy collectif des amicales mhm. ñoom nee nañu ànduñ ci décision boobu yow noo ko gisee ci nga bokk ci étudiants yooyu euh, bon peut-être euh, je vais par de l'autre côté euh, je ne partage pas en tout cas l'avis euh, de certains en tout cas de mes de mes pères étudiants mais de l'autre côté aussi je partage euh, l'avis pourquoi je dis ça je m'explique. ci ci nga baal ni. voilà ma expliquer ko ma bamtuwaat ko c'est parce que ñoom bu ñu nee ñoom d'accord ñu ci décision recteur parce que ñoom ils pensent toujours à leur petit frère qui habite euh, au fin fond du Sénégal dont l'internet la connexion n'est pas aussi quasiment bonne. Hmm. donc euh, et actuellement aussi ils ont des problèmes à pouvoir aussi en tout cas gérer avec leur PCS leur machine. Euh, deuxièmement il y toujours des étudiants. ci wolof voilà deuxièmement am na ay étudiants. Hmm. toujours yoo xamante ne amuñu machine ordinateur. donc euh, c'est ça va devenir très compliqué même bu ñu amee ay portable yoo xamante ne mën naa tax ñoom ñu connecté wu aussi euh, je ne pense pas que loolu aussi mun a arranger ñoo xamante ne dañuy def première année deuxième années ñoo xamante ne dañuy doog a ñëw université aussi. c'est en ci cours en ligne. bon du du bu nekkoon sama sogo en tout cas mën nañ def cours en ligne li tax aussi ma valider que mën nañ def cours en ligne c'est que li jot a xew université euh, kenn rafetlu wu ko et que je pense que ne li taxoon loolu xew ba tey kenn xamagul suite bi lan lay doon hmm. donc bu ñu naree bàyyi foofu noonu ay étudiants aussi ñuy euh, am loo xamante ne donc dañuy yàq ñi doon ay des infiltrés ñoo xamante ne dañoo dugg biir université voilà c'est-à-dire que si la sécurité n'est pas assez bonne hmm. donc c'est normal aussi de de de protéger les étudiants les gens en en critiquent mais aussi est-ce que les conséquences il faut il faut y penser les les tenants et les aboutissants quoi mais tey si conséquences yooyu noonu étudiants yi di jàngee UCAD dañ leen préparé woon pour ñu def courant ligne boo jëlee li ñu mel la UVS. E si mhm. commencement bi am nga sa ordinateur am nga sa connexion dañu jël lépp en considération mhm. mais UCAD mosuñoo liggéey si sens boobu noonu si côté boobu noonu mhm. toujours nit ñi foofu la ñuy jàngee est-ce que tey su fekkee ni sécurité élèves yi étudiants yi la ñuy xool est-ce que ñoom ilee dinañ mën a continuer seen jàng mais je te donne tout simplement exemple très euh, élémentaire euh, la quasi-totalité des gens qui, qui fréquentent le privé, ce n'est pas qu'ils ont été enseignés les cours en ligne. Moi qui parle avec vous, j'ai passé même par ces écoles privées. Je faisais ces écoles privées en même temps l'université. Et moi-même, <coughs> j'ai eu même à, à, vivre ça, quoi, en fait. Non, mais est-ce que. En ligne, à l'université même. bu ñu jëlee exemple UVS mm-hmm. boo fay jàngee mm-hmm. état wu Sénégal da lay jox ordinateur mm-hmm. da lay jox connexion mais tey ñi di jàngee UCAD yëpp amuñu ordinateur amuñu xëy na connexion est-ce que tey bu ñu jëlee décision yooyu bu ñu jàngee seen kër est-ce que ñoom ne mën a yeggali seen jàng même su fekkee ne sécurité boobu ngeen soulever moom ngeen bëgg ci askan bi est-ce que ñoom seen jàng dañ ko yeggal moi je te dis tout simplement que je partage l'avis mais de l'autre côté je ne partage pas l'avis avec les à Fongolémi dont la connexion n'est pas bonne <laughs> dont la connexion n'est pas bonne moi je donne tout simplement un exemple dont la connexion n'est pas bonne euh, il y en a toujours des étudiants qui ne disposent pas aussi des ordinateurs comme mm-hmm. les gens qui font première année ou deuxième année mais cherche-toi que dans tout règlement il y aura tout simplement des gens qui vont qui vont y c'est ça les conséquences des des des des des des violences. voilà donc. Euh, la conséquence xam naa tey daa foog ne tey ay tubaab wala ay ay étudiants lay lay waxal moo tax mu nekk ci mouvance su. Euh, français bi français bi ah. waaw mais euh, téléspectateur. mën mm. nga gën a làkk olof comme ça ñoom ñu gën a jëriñoo ci li nga xamante ni. voilà c'est euh, c'est ça aussi. waaw damay damay fàtte mais loolu loolu am cest à yow bu yaa ci digg bi. bañoo <laughs> bi partagé. non c'est ah non man nekkuma ci digg bi sax. c'est li ma bëgg a expliquer foofu mooy ñoo xamante ne dañuy doog a ñëw université. Mm-hmm. ils n'ont pas encore les moyens ils n'ont pas encore les bagages nécessaires de pouvoir faire des cours en ligne mais n'empêche parmi eux mm-hmm. il y a toujours des gens intelligents qui euh, bon qui après avoir en tout cas créé en tout cas leur leur qui leur leur euh, boîte ils adaptent vite fait en tout cas les les les cours en ligne. très bien ce n'est pas une première mhm. xam yëf yi fu muy mujjee ndax amicale yi ñu ngi contesté dem sax bay sàkku ay démission seen <coughs> ak recteur bi léegi ñu ñëw ci euh, coow politique ak li nga xamante ni moo wund moo indi problème yi yëpp mooy manifestation yi fi amoon euh, premier ak 2 juin yow nga bokk ci APR ci ndaw APR yi ko gère euh, ban jàngat ngay def ci manifestation yi amoon ci réew mi ci wolof la. jàngat bari na jàngat bi ma ci am c'est euh, mooy euh, ñun ndaw ñi euh, les jeunes war nañ mën a xoolaat suñu bopp bu baax a baax parce que ñu ngi dooleel loo xamante ne tey jii nii suba mën nañoo coûter préjudice mën naa nekk loo xamante ne mën nañoo yàqal lu bari parce que Macky day jàll temps am day jàll temps Ousmane sonk day jàll. te am na éducation de base boo xamante ne buñ ko amee tey suba ça va répercuter sur nous dina dina ñu xaw a freiner dinañu yàqal lu bëri parce que ñu ngi nii di di jàngal euh, les gosses là de la violence sacc saccage et entre autres de mauvais et que li xew aussi parfois mën naa wax ne genre haine lay doon ranki Euh, ci fànn yu bëri euh, su ma fekkee Label TV fii nii parce que gars yi mën nañ di gis ne que dañoo invité benn benn doomu doomu APR ñu nar a taal Label TV yow bi euh, le PDG de Label TV tey jii nii di lijjante ay bagage di lijjante lépp aussi pour teg chaîne bi mën ñoo jox ay information à travers la Sénégal et un peu partout dans le monde on n'a pas droit à saccager en tout cas su joyau même kii euh, bokk naa ci kii bokk na ci kii bokk na ci parce que ñoo naa di ci def émission keneen aussi dina fi ñëw di ci def euh, émission alors que du doon parti au pouvoir ñu xool aussi ay kër yoo xamante ne ay këru jàmbur que ça soit de l'autre côté de la mouvance présidentielle que ça soit de la de l'opposition euh, waruñu di yàq këru jàmbur yi comme ça gratuitement parce que li tax c'est-à-dire ñun dañoo nekk ci ci ci ci benn ci benn système boo xamante ne si on laisse passer ce système ce système de gaspillage système de haine ce système de rancunier donc sa sa ça va ça va le Sénégal dina gën a tax Sénégal du mun a avancer ci ci ci la lépp loo xamante ne ay dafa am gars dañ koo gis fii nii mu doon loo xamante ne c'est une première fois ñu koy doog a exploiter comme pétrole ou quelque chose comme ça hmm. alors que s'il y toujours l'exploitation de pétrole ou gaz ou quelque chose comme ça il y a toujours des mercenaires qui sont toujours aux alentours d'accord juste euh, pour influencer pour may doole ñenn yi. voilà que ñu ñuy gën a jege à chaque fois. c'est opposition Ibrahima Sànq yaa ngi wax ci jeunes yi ah, yaa ngi wax ni ay jeunes yu xam ne dañoo fidèle à Macky Sall ci nga bokk tamit. Mm-hmm. par rapport ak euh, troisième candidature bi nga xam ne ba tey mu ngi continuer di def actualité. Mm-hmm. lan moo nekk seen taxawaay côté boobu. Euh, jeunesse républicaine fidèle à Macky Sall. c'est un mouvement départemental. <coughs> moi qui parle avec vous. j'en fais partie parmi les têtes de pont. Ibrahima kañ ngay làkk olof. <coughs> voilà bokk bokk naa ci bokk bokk naa ci ñoo xamante ne <laughs> aussi euh, fës nañ ci mais tey jii nii on est là pour euh, dañoo dañoo dañoo dañoo pare pour gungewaat le président Macky ñun pare nañ 2024 pour gungewaat le président Macky amuñu plan A ni B ni C amuñu dañoo amul sa plan Macky mooy suñu plan pour 2024 point barre. loolu baalu taalaat réew mi ak li fi jot a xew nii. non euh, pour man euh, gars yi nee na Macky amul le président Macky Sall amul droit def troisième candidature. Mm-hmm. ñii nee na le président am na droit euh, def troisième candidature ñii di ko wax deuxième quinquennat. ñii di ko wax second quinquennat pour des questions plus ou moins juridiques mais man je dis tout simplement que au moment où on avait posé l'acte en 2016 et qu'on qu'on a voté ça oui par référendum oui ou non ils ont validé la troisième candidature du président Macky Sall ça ce n'est plus même une question. moom nee na nangu na bàyyi mais ñu ñaan ko ko ci njëkk léegi bu ñu ko ñaanee ci njekk moom bàyyi yéen jeunesse euh, républicaine nan ngeen def. nekkul euh, le président Macky moo moo war a décider côté boobu. Ah, c'est c'est le parti. Hmm. le parti bu xëyee ba def congrès ñoom ñooy choisir tànn. léegi moom Macky bu nee man ma nekk candidat léegi buñ ko tànnee ba pare moom amatul lu ma yóbbu. waaye loolu yéeme na di. ah bon c'est le parti en fait. Hmm. parti bi bu xëyee ba tànn candidat am c'est parce que dafa am wóolute ci candidat boobu. parti bi bu xëyee ba tànn Macky c'est parce que dafa gis ne Macky moo am majorité boo xamante ne mën naa tax ñu dem jongante ci parce que man gëwuma ci biir APR ñu préparer un deuxième ou un troisième. man gëwuma loolu man li ma gëm mooy lan base bi gars yi di wax yépp c'est la base affective du président Macky mais tey euh, Ibrahima yaa ngi nekk étudiant 2011 2012 étudiants yi aussi ñoo doon xeex pour bañ a amal lii di troisième candidature. mais est-ce que tax na maître Wade posé wul candidat maître Wade candidat la mais laisse-moi terminer ba ñu bëri daal di koy xeex. ba tey gii nii bokkoon naa ci ñi ko doon xeex. et je sais que je sais que côté boobu ngay ñëw balaa ngay ñëw foofu dama leen. <laughs> mais c'est incohérent. mais non mais mais mais non c'est-à-dire non euh, c'est-à-dire lu mu li ma ko bëgg a wax mooy 2000 euh, 2009 dafa fekk juste. ñu ne xam nga xam nga aussi c'est euh, ces questions juridiques là. Mm. ça se ça départage euh, avec le conseil constitutionnel. bu xëyee ba ne man validé na candidature président Macky Sall ku nekk na dem ligué mais aujourd'hui gars yi mën nañ ko xeex am nañ droit xeex ko. mais c'est le conseil constitutionnel qui va valider c'est pas à nous c'est pas à moi. Hmm. le président Macky Sall waxoon na ko nee na man ñaari rakk laay def moi je le dis honnêtement Ousmane Sonko validé woon na aussi. euh, la candidature du président Macky Sall en 2024, de 2024 jusqu'en 2029, de même que Barthélémy. Mais là, boo nekkee ci campagne ta voix n'est pas juridique ni institutionnelle boo nekkee ci campagne je mesure bien mais mots mais boo xëyee ba falu faluwaat président ta voix est institutionnelle. sama la différence pour savoir est-ce que Macky bi muy wax loolu. Hmm. il était président est-ce que. bu mu koy wax il était dans euh, campagne la doon def wala bu mu koy wax aussi Euh, donc euh, c'était un candidat candidat la woon nii rek simple wala. mais toujours sama question laa bëgg a ñëwaat. Hmm. moi quand je parle 2011 gis ngeen conséquences yu mu fi juróon ci côté boobu noonu. am yan conséquences. gis nañ nit yoo xam ne ñàkk na seen bakkan gis nañ xam ne fii nii nit ñu bëri yàqoon nañ ci seen bien est que yéen tey aujourd'hui on a vu que Macky ba tey waxagul il candidat ou pas. Hmm. mais gis nañ coobu muy jur ci réew mi gis nañ saccage yoo xam ne nit ñi moom la ñuy nekk fii di compris que ay nit di si ñàkk seen bakkan ñu si yàq aussi yeneen disons bien comme ni ñu ko defee si début juin bi. est-ce que ñun waruñoo dépasser côté boobu. je vous pose la question non je vous pose la question. c'est à dire non je vais répondre c'est juste euh, benn oratoire la quoi man li ma li ma gëm tey jii nii mooy ndaw Fatick yëpp. ñu ngi derrière le président Macky Sall pare nañ pour gungewaat ko 2024 man loolu laa gëm ñi nekk aussi le mouvement des élèves et étudiants républicains du Sénégal et de la diaspora pare nañ pour gunge Macky ñu nekk COJER convergence des jeunes républicains pare nañ pour gunge président Macky ñu nekk ci plateforme Macky 2024 soutenons notre maki ak yeneen plateforme yi donc pare nañ pour gunge président Macky Sall deuxièmement ci question bi nga wax mhm. mooy 2011 am nañu ci ñàkk seen bakkan euh, est-ce que sa a empêché Ablaye Wade mën na est-ce que mën tere na Ablaye Wade. waaw léegi est-ce que yéen kon tey pare ngeen aussi 2024 2023 bii nii leneen xewaat ci réew mi pour Macky Sall valider candidature am. c'est-à-dire xam nga lan la. c'est ça ma question aujourd'hui moi je me pose juste la question. est-ce que yéen tey jaral na leen ko mais c'est juste ça ma question. est-ce que tey gii nii parce que xam ngeen ni Macky Sall bu ne je suis candidat conseil daal di génne Macky Sall nangu nañ la sa candidat. Hmm. on sait que des Sénégalais vont sortir. ñu dem ñu dem campagne. non waxuma campagne on sait que des Sénégalais vont sortir. on hmm. sait que manifestation dina am et on sait que si conséquences yu ñu siy xaar. Hmm. est-ce que yéen tey pare ngeen pour loolu yëpp. ñoom bu ñuy manifeste bu ñuy manifester comme yaa ndax opposition rek la mën a doon. bu ñuy opposition donc population bi am na si ñoo xam ne duñu opposition duñu si aussi si côté gouvernement bi. ay société civile ngay wax. du société civile <laughs> mais aujourd'hui ici fii ci Sénégal am na Eh, mais au-delà même de mm. loolu moom sóoraale mouvement politique mais moi mooy tey est-ce que yéen waa APR pare ngeen pour lépp loo xam ni mën na jur ci troisième mandat boobu ngeen assumé ko man daal li ñu pare mooy lan lépp loo xamante ne day defar Sénégal ñun pare nañ ci loolu lépp loo xamante ne troisième mandat day taal réew ah. c'est ça en fait ci ñoom ci ñoom ci ñoom ci ñoom ci ñoom day ci ñoom day taal réew ci ñoom day Sonko troisième mandat kon day gën a yokk ci xami karaw Aliou ci ñoom day taal réew hmm. ci ñun taalul réew lu tax lu tax parce que il suffit nous sommes dans un état de droit mënuñoo ne dañoo nekk dans un état de droit fii Euh, dañoo nekk ci ci ci état boo xamante ne tey jii di ci réew boo xamante ne dafa am loo xamante ne moo ñu tënk ñun yépp ñu ne tënk lii lañ tenk Macky Sall candidat candidat la kes gars yi di génn fii nii di reyante ñu bëgg a reyante dinañ dem reyante ji ñoo xamante ne pare nañ aussi pour le devenir du Sénégal dinañ dem aussi uti leneen mën naa gis mën nga gis ñoo xamante ne tey jii nii ci opposition bi lañ bokk mais jaral lu leen aussi ñoom ñu ñu ñu toog di taal ay panneaux wala leneen ak leneen parce que dañuy xam ne aussi c'est le conseil constitutionnel moo ñu moo moo may droit Macky Sall tey jii le président Macky Sall tey ji nii mu nekk candidat. mais ñenn ñi ne moom Macky Sall sax euh, dafa mel ni xalaatul def ñetteelu mandat. Mm-hmm. mais dafa bëgg a reporter élection yi ba 2026. Mm-hmm. yéen jot ngeen xibaar boobu. Mm-hmm. loolu parti bi bon gars yi waxaguñ loolu ci parti bi mais li ma leer. Mm. jusqu'à l'instant T ci parti bi mooy. élection yi kenn euh, repoussé wu ko li ma leer ci partie bi nekkagul ci agenda euh, de la euh, du du du du parti républicain nekkagul ci agenda boobu. tey hmm. Ibrahima ci dialogue bi lay ñëwaat. Mhm. njiitu réew mi wootee dialogue ngir waxtaan ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci askan wi politique yi et tout. Mhm. mu am ay jafe-jafe ñii d'accord ñii d'accord ñu yow mooy sa gis-gis ci wàllu boobu. noo xam nga dafa dafa dafa dafa dafa woo gars yi ñoo xamante ne ay acteurs lañ di yëngatu ci politique yor ay parti politique woo leen pour ñoom ñu xoolaat taxawaayu Sénégal politiquement socialement économiquement entre autres léegi am na ñoo xamante ne nee na du ñu dem parce que dañoo gis ne dialogue bii nii am na lu ci rax dil la dóor la dil la dóor la indi gëmmu comme ni ko gars yi waxee mais man dama gëm ne su fekkee da nga gëm Sénégal euh, le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais même boo farul ak moom man dama gëm ne bu la woowee tey jii nii ne la kaay ñu waxtaan war nga mun a dem soo jugé nécessaire que lii nag jaru ko wala mënuma faa dem ah nga toog sa place rek awul problème ñi fa bëgg a dem comme ñoom Khalifa dem nañ ñeneen ak ñeneen ñu ngi dem. ñoom PDS ñoom dinañ euh, am nañ ay am nañ fa ay représentants Khalifa Sall ci Yewwi la bokk euh, mu ngi dem. gars yi neen dialogue bi magu démb yaa fa nekk de ndax ah. mënoo dialoguer te Ousmane Sonko bokk ci quand même. mën mm. a dialoguer te mm. principal opposant président. Mm. toogul ci dialogue bi c'est insensé. Euh, donc xam nga Idy bu demee ba ne man damay poser au candidat on directement à ces à ces 866 en 866 000 voix en, 2000, en 2019. Et il, est, il est revenu <laughs> euh, chef de l'opposition. Ah. non je donne je je je voilà euh, euh, Ousmane Sonko il est euh, cent six cent soixante mille voix. Hmm. ouais il xëy na Ousmane Sonko mu ngi ni moom xiccoowul chef de l'opposition mais bu génnee ci terrain bi gars yi xam nañ man aussi dama koy nangul loolu. Mhm. parce mhm. que il faut être juste honnête quoi en fait. honnête avec toi-même mais euh, nag. Mhm. warul mun a tere Ousmane Sonko fi Idrissa dem fi Khalifa sal dem Khalifa ci Yewwi Askan bi la bokk dafa mel ni. il a représenté Yewwi Askan bi. il avait représenté Askan bi parce que ali fa Sall. fait partie ñoo xamante ne ñoom ñoo sos Yewwi Askan Wi. dinañ ci léegi waxtu bi jeex na Ibrahima waxtu bi jeex na waxtu bi jeex na donc <laughs> rapidement beneen bi mooy ñenn di dox médiation diggante Macky Sall Ousmane Sonko en France noo gise euh, médiation boobu amul. non est-ce que yow bëgg nga mu am. bëgg ma mu am pour lan. Hmm. Ousmane Sonko jàmm am ci réew mi. man man mii di wax ak yow. bëgguma ñu dox benn médiation entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Hmm. affaire juridique c'est affaire. correctionnel nañ bàyyi yoon moom mu def liggéeyam parce que Ousmane Sonko n'est pas au-dessus de la loi. très bien di la jaajëfal Ibrahima Faye merci beaucoup étudiant di ndaw responsable APR di la jaajëfal sa teewaay suñu plateau. merci beaucoup di jaajëfal euh, Aliou di jaajëfal. Euh, Fatou Fatou. Sadio Sadio maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal aussi suñu label. Euh, je pense que ne suñu suñu suñu technicien bi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax donc di nuyu waa Fatick yëpp jeunesse républicaine fidèle à Macky Sall la JRFM di nuyu aussi les autorités du département de Fatick di leen di masawu coono di nuyu les autorités du Sénégal très bien donc merci euh, ñoo amoon mbégte teew fii depuis ci suba ba tey ñoo jox dig daje ëllëg bu soobee suñu boppam merci merci beaucoup Ibrahima fay ci leer yi nga xam ne indi nga ñu ko donc on verra bien par la suite même su fekkee dong yenn question yi tey Moussa Kese laay remercier ñaar ñi dama leen remercier di la jox rendez-vous suba incha allah. merci beaucoup à toi Sadio Diallo bon da nga koy comprendre buur la séeréer la c'est normal bu ñëwee ci plateau bi mu fekk fi appel mu daal di rek euh, di jël daal lépp loo xam ne bëgg na ko fi donc merci à toi Sadio Diallo merci Alioune merci tey Ibrahima Faye di euh, jeune responsable bu APR donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun euh, depuis 8 heures le matin donc dig daje dem incha allah ci beneen euh, matinale d'ici là portez-vous très bien et way leen di seetaan suñu Label TV moo nekk ci xolu Sénégal ñu yendoog jàmm